ñu ngi am mbégte kontaante fas yéene àndaat ak yéen ci suñu dars qasul asar ala nuuril basar fi sirati sayidil basar muy téere bu am solo boo xam ne sarxu la ci nuurul basar nuurul basar bi nga xam ne mawlaana Cheikh Ibrahim Ñas radiallahu anhu moo ko taalif ki ko sharha nag di borom xam-xam bu mag muy al ustaaz ibrahim ahmad ñang yal na ko yàlla yokk sàmm te guddal fanam tey ñu war a ànd ak ci suñu fukkeel bi dars ak ñaar dars bi weesu nag ñu ngi doon jàng e, lu am solo mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ko yàlla joxee mission mission boobu effet bi amoon ci ñëw far mbooleem luñ fi doon samp di ko tuddee diine te jugewut ci yàlla ba sax tax na ba nga xamee ni lislaam ñëw na delloo ci diine yi suñu maam ibrahim delloo ci diine yi yonent yàlla muusa delloo ci diine yi yonent yàlla isa e, ñi nga xam ne ñoom ñoo doon topp e, seen mufti bu mag boobu nga xam ne mooy iblis seeni mbir yëpp daal di yàqu seeni mbir yëpp daal di dellu ginnaaw seeni mbir yépp daal di màbb dem ba seeni mbir yëpp daal faru loolu lañ doon jàng ci dars bi weesu Baye Ñas radiallahu anhu doon wax ni jaa bi samhati lxanifati bayda diini a jadid istiqaali وقبيل الإتيان عما ضلال لست تطري محرما من حلال maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo indi diine ji set bi nga xam ci la yonent yàlla Ibrahima jàppoon lu jiitu nag diine jooju di ñëw ña doon dund ci kaw suuf fexe nañ ba matale kaw suuf yépp ci ci euh, ak cànkute ba nit ki mënatu tax xam ne lu dagan ak lu xaraam ñu daal di soppi daal di taxriif maanaam taxriif boo ko déggee mooy dindi ay baat dugal leneen ci seen ci téere yi nga xam ne moo doon téere yàlla yi déglu xam ne moom la iblis doon joxe ñu daan dund seen diine ci làmbatu toskare ñeel na képp koo xam ne rek topp na yoon woowu lu dul ba yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwee génne leen ci lëndëm gi nekkoon yóbbu leen ci leer fait une action صلى الله عليه وسلم بخديجته رضي الله عنها جل بنقم يونت صلى الله عليه وسلم جل نكو صحن سيدي خديجة دفكم صحنا باي رضي الله عنه راقبته خديجة إذ رأت في النوم بدرا يهي لها باتصال جربته وأمنعت نظرا فيه بصدق الأخبار والإدلال خطبته لنفسها آمنت قبل جميع الآباء والأنجال بان راقبته فقل نكو موم خديجة كان لفقل ينتبي صلى الله عليه وسلم إذ رأت jamono ja nga xamee ni gis na ci naw mi ci ay géntam ci ay nelawam badran biddi weer woo xam ne yëx yi lahaa bittisaari maanaam weer woo xam ne daf koy xiirtal ci jokkoog moom weer woowu maanaam weer wi la gis ci géntam waaye bëgg-bëggam yépp mooy jokkoog weer wi xam nga ni weer wi mooy yonent bi sallallahu wa sallam mu ne jarrabatu examinal nako ko seet saytuwaat na mbir mi wa amanat nazaran mu setantal ak gisinam fiihi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole kook nag bi sidqi al akhbar ci dëggal xibaar yi nga xam ne moom lañ doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam jëlee ko ci ña fa nekkoon di ay nit ñu baax ku mel ni waraqat ibni nawfal ku mel ni bahira arrahib ñooñu nga xam ne ay nit yu baax lañu woon wal idlaal ak tegtal yi nga xam ne joxe woon nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu dëggal na ko ci xibaar yi nga xam ne maysaratu mim boole woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci commerce ba moo ko ko jox eh, ak tegtal yim ko jox ci moom ba mu gën koo sopp bàyyi na xatabathu li nafsiha xutbaal na ko boppam ginnaaw loolu amanat gëm na moom amina xabla jamiil abai wal anjaali lu jiitu mboolem bàyyi ak kon ki nga xam ne mooy xadijatu bintu xuwaylid mooy ki njëkk topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mission bii yàlla di ko doxloo te mooy historien wax nañ ci lu bari ñi ne Seydina Ali la ñi ne Seydina Aboubacar la ñi ne Seydina Khadija la kullin niñ ko tàkkalee mooy jigéen ñi moom Seydina Khadija moo ci njëkk dugg ci lislaam góor ñu mag ña Seydina Aboubacar moo ci njëkk dugg ci lislaam góor ñu ndaw ñi Seydina Ali moo ci njëkk dugg ci lislaam anhum jamian بيتي نك دي بيتي ام صلو مو ام سي اي بات يو خوا جفه لمن راقبته راقبه من المراقبه ني جوجي سي فوكلو اي قاعد يرقب صاحبه مانام دا فا توك دي ستانتال كم لم بغي ستانتال ايوا لولو لو ام صلو لا ا بوبو مودون ستانتال مجنون صلى الله عليه وسلم باتو امعن النظر مومي تامي بوكا عربو هي موي بالغ سقط صائه مانام قوتلنا تي جسو تي ندير وادي تا تنتال نكو باخ دا كان بات يوي ني بات يو خامني جسنا في بيت يوي المعنى معنى بيت بي نك لما رات خليجه في النوم كان القمر سقط بين فخذيها سيدنا خديجة رضي الله عنها بمجيسة في أي جنت ممني ويروي دفا دانو في أي فوجم وكأنه يجانعها ممني دفا جخص موم في حكت رؤياها لورقة ابن نوفل فلن يتلي جنتم جوب ورقة ابن نوفل الذي كان قرأ الكتب القديم ومن يقم نجانغون نتيري وبشرها بأنها مبجلي كونيكو موم خديجتو إذا كانت رؤياها صادقة بفك جدا جدا ستكون زوجا لآخر الأنبياء المنتظر منتظر تنكي صحنك كي مجيكي يونتي تا مويكي خاف وبو يونتي صلى الله عليه وسلم أب نبوتهم أجرسالتهم سنقود ولهذا لول أصبحت خديجة خديجة مجو تراقب لستنتل وتمنع النظر عن الأخبار ببايخ الخبار التي ينقبن تأتيها عن محمد صلى الله عليه وسلم موي ديك دي جوجي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه كأي ديكوم يرفت ونزاهته أكسلم وكرمه أكدنا فخطبها لنفسها مخطبال كبوبم maanaam ba mu gisee ku mu bëgg amut ab day pour wane kii la bëgg kon ni ni góor amee droit tànn soxna su baax noonu la jigéen amee droit tànn borom kër bu baax noonu la sayyidatuna Xadija radiyallahu anha def te moom sayyidatuna Xadija radiyallahu anha mooy ki njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu nit ñi alal itlaq loolu la Mawlana Cheikh radiallahu anhu wax ne amanat qabla jamil abai wal anjali sayyidatuna Xadija gëm na lu jiitu mboolem bàyyee toon eh, lii nag ab tënk la waaye qissab eh, ziwaaju sayyidatuna Xadija radiallahu anha bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qissa bu am solo la dinañ ko nettali آه، يونت بي عليه الصلاة والسلام لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرأى الغنم في الصباح يونت بي صلى الله عليه وسلم دفنه كون كو خمني دفدان سم أي جرسي أب قلم وكان يذكر رعيه إياها مغتبطا وكان يقول ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم وبعثت وأنا راعي راعي غنم أهلي بأجياد yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na toog di fàttali saxaaba yi jamono ji muy eh, eh, sàmm mu doonoon lu neex ci xolam daan na wax ni yàlla mësta yónni ab yonent lu dul yonent boobu sàmm na te ku dellu ci histoire yonent bi di gis ni ñoom ñëpp sàmm nañ mu ne te man yàlla yónni na ma may sàmm sama gàtt ak njaboot ñoñ ci ajiyaat ajiyaat benn gàdd la goo xam ne ñu ko xam léegi mu nekk ci benn ci quartier Makka yi nga xam ne ville bu mag a mag mag la wa kaana abu talib xalifa faqrin kathiril iyal abu talib moom itamit yàlla dafa dogaloon mu nekk nit ku ñàkk waaye mu bëri woon njaboot lool waaye nag ففكر في أن يجد لابن أخيه محمد سببا لرزق لرزق أوسع من راعي الغنم mu xalaat na ci dugal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne dina ci jëlee wërsëg wu gën a yaatu wi doon am ci sàmm gàtt yi walamma alima tajhiza Abu Talib ba nga xamee ni gis na ni moom taxu ko am doole ci wàllu wërsëg te njabootam bëri na lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy liggéeyee kese si néew di ko ci dimbali gis na ni bëriwut mu koy wutal nag beneen liggéey boo xam ne yaakaar na ni ci lay gën a amee lu gën a bari ci wàllu wërsëg walamma alima bi tajhiizi xadijata qaafilata tijaratiha ila sham ba mu demee ba xam ni sayyidatuna xadija radiallahu anha mi waajal convoi wu bi war a jëm dafa woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yow sama doomu mbokk mi biir man sa baay laa waaye laa maala lii yàlla dogal na ni aw waqad istadda zamaanu alayna te gis nga tartar yi ñuy dund ci jamono waqad balagani anna xadija istajarat fulaan dégg naani ni xadija jàpp na mbindaan wala jàpp na ab liggéeykat diw ñaari ñaari waxambaane te ñun buñ sañoon doo def loolu waaye situation moo ñu obligé ci loolu fa hal laka an ukallimaha ndax dinga ma jox ndigal ma wax moom ci mu jël la nga liggéeyal ko yonent bi sallallahu ne ko maa ahbabta maanaam yow lu neex rek neex na ma abu talib génn jëm ci sayyidatuna xadija radiyallahu anha ne ko hal laki ya Khadija an tastajiri muhammadan yow Khadija ndax mën nga ma bindal muhammad muy liggéey ci yow jot nañ xibaar ni yow jël nga ñaari waxambaane te ñun itamit bëgg nañ nga jëlal ñu muhammad mu bokk ci say liggéeykat Khadija radiallahu anha tontu ko mu ne ko boo ko sàkku woon ci man ci koo xam ne jàmbur la sax dinaa la ko defal rawatina nga di ko sàkku ci ki nga xam ne soppe la waaye kuñ jege la abu taalib daal di dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko nu mbir mi demee ba pare daal di koy wax ni haada rizqun saaqahu llahu ilayk lii wërsëg la boo xam ne suñ borom moo ko màng jëmale ko ci yow loolu boo demee ci docteur Haykal indi na ko ci xayaatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu ak sayid muhammad rida inna ci téeréem muhammad rasulullah même riwaaya boobu waaye nag mu am lum ci yokk موي إن محمدا لم يكن في وقت من, من الأوقات طامعا في الغنى يونتي صلى الله عليه وسلم مست أم جمعنا جو خمني دلنا كدي سخلة أو كوم كوم وإنما كان سعيه لغيره لجي دون لجي يبدأ كدون لجي نجير مبكمير ولو ترك الأمر لنفسه لآثر أن يعيش في هدوء وسلام قانعا بحالته بفكون ميرو بوبام لارك كونون دينا مانا دوندو كي اكاس نيو بيكو يالا دوخ كي دال اكي جام دويلو حال بيكو يالا تك وينك ولما فكر في رحلة كهذه نيتي konoon du masa xalaat di tukki tukki wu mel nii muy tukki commerce walakin lamma arada alayhi ammuhu safar ba nga xamee ni bàyyi taxam bi jaaral na ko tukki woowu saurat nafsahu alkarima bi darurati tafridi kurbati ammihi fa ajaba talabahu masruran dafa yëg ci boppam ne dafa war ci moom mu teggil bàyyi taxam boobu njàqareem bi mu nekkee ci xatum wërsëg moo tax mu nangul ko lim sàkku ci moom ànd ceeg mbégte loolu boo demee ci muhammadu rasulullah li nga ko fekk boo demee ci nuurul yaqin ak cheikh muhammadul xadrawi al xudari dafa nettal ne annahu sallallahu alayhi wa sallam lama balaga sinnahu xamsan wa ishirina sana ba mu demee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ay atam mat ñaar fukk ak juróom saafara ila sham المرة الثانية دا فتوكي جم سام تي اليونم ناخ توكي وون نا بامي ام فوكي اتاك جيرو اندك باي تخمبا دي ابو طالب نيار التوكي دي نك من وذلك ان خديجة بنت خويلد الاسدية كي سوحنا سيني وخديجة بنت خويلد الاسدية بوكون تي جيرو اسد رضي الله عنها كانت سيدة تاجرة سنجلون وخمن كوميرسان لون ذات شرف بروم ترانغلاون ومال بروم ألالون تستأجر الرجال دفدان لجي لو غوري في مالها في ألالم وتضار بهم إياها ما نام دفلان دون لجي لو دلان فاي داولان أمل بين أق فلما سمعت عن السيد عن السيد الكريم بم دجي سنگ بتردبي دجي تموم أي خبار من الأمانة في كولوتي وصدق الحديث الدجو أي وقت لم تعرفه في غيره ديكو يوي مودي ديكو يونتبي صلى الله عليه وسلم موت كو خام كودوت يونتبي صلى الله عليه وسلم ديكو يوي ني خام ني حتى سماه قومه الامين با سيتام ني الامين استاجرته ليخرج ليخرج في مالها الى الشام تاجرا خديجه داري كوي وولو ليغي لوكو سانتكو ngir mu ligey loko fakku ci waaye jox ko alalam mu génn jëm saam ngir commerce wa tu'tiyahu afdala ma kaanat tu'ti ghayrahu jox ko li li lu ëpp ak li gën lim daan jox ko duhut yonent bi sallallahu alayhi wa fa saafara ma to gulaamiha maysara yonent bi sallallahu alayhi tukki ànd ak xaleel eh, mbaa yàlla ak sayyidatuna Xadija bi radiyallahu anha mi ngi tuddoon Maysarata fa baañu jaay wabtaa wa rabiha ribhan aziman ñu jënd ñu def jënd ak jaay maanaam ñoom seen commerce noonu la dañ daan jaay léeg-léeg ñuy weccee seeni marchandise ak yeneen marchandise ñu bénéficié wu nag bénéfice bu mag boo xam ne Xadija mosu koo am ci commerce loolu boo demee ci Nuurul Yaqiin dañ ko fa fekk niki noonu soxalee nañ jëlee Ibn Abbas radiallahu ci siiraam من معنى يين تدني مجارا من قصة ينا خرنا موي قصة تكي تيرون تبي صلى الله عليه وسلم ياتل كلول دفن يرون تبي صلى الله عليه وسلم دفارنا جدي مكة جنسان فنزل صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من رهبان من رهبان مسطورة من يرون تواتنا سبن كر ci garab bu jege benn église ci église wu labbe ya nga xam ne ñoo nekkoon ca nastora fa talaa rahibu ila maysara labbe ba daa di wala nga ne fóode ba daa gis maysara fa qaala lahu mu ne ko man hada arrajul kii mooy kan waa ji mooy kan man hada arrajul alladi nazala taxta hadi lfajara waa ji mooy kan waa ji wàcc ci ron garab gi mooy kan faqaala lahu maysara maysara ne ko hada rajulun min quraysh kii benn waay la boo xam ne ci quraysh la bokk min ahlil xaram mi ngi bokk ci ahlul xaram alxaramul makki fa qaala lahu rahib rahib bi ne ko nastora maa maa nazala taxta haadihi sajara qattun illa nabi ne ko ron garab gii kuduwut yonantu musu fee wàcc loolu boo demee ci surat ibni hisam ci surat ibni hisam liñ ko fekk وعلى كل حال في من أك على كل حال لما وحد الموي فقد ذهب الأمين إلى الشام النبي صلى الله عليه وسلم جن الشام في تجارة لخديجة جر كوميرس الخديجة وباع وابتاع وربح ربحا عظيما مجاي جنري هذه بنفيس بنفيس بمك فرضيت صاحبة المال ردا كبيرا خديجة بنت خويلد برم على الجداد جرم النبي صلى الله عليه وسلم جرم عندكم مك ci num ko sàmmalee alalam bi mu daal di koy gu mag a mag a mag a mag ci ñi nga xam ne noonu la ko sàmmalee euh, alalam bi ba nga ni nag gërëm na ko wa qarrat aynaha bi taqariri xulaamiha maysara xolam daa di sedd ci rapport bi nga xam ne xaleel bi àndoon ak yonent bi sallallahu na ko ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah awsathu inda awsathu inda zihabi bi an yutiha taqriran ndax ba muy dem daf ko boobu bu ma ñëwee bëgg defal ma benn rapport ci tukki bi nga tukki yow ak sama waa ji وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة زكية خديجة بنت خويلد رضي الله عنه جيجين لون جو خمنا حازمة كد أمون دولا شريفة كتدون لا زكية كويوون لا فلما أخبرها ميسرة بكو ميسرة نتلي لمجي يونتبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعم بعض العلماء دفع يوني يونتبي صلى الله عليه وسلم ci lenn li nga xam ne borom xam-xam yi njort nañ ko maanaam borom xam-xam histoire yi dañoo wuute ci xisba bi moo tax ñenn ci borom xam-xam yi dañ ne dafa yónnee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne inni qad raghibtu fika li qarabatik wa wasatik fi qawmik wa amanatik wa husni xulqik wa sidqi xadisik summa aradat alayhi nafsaha mu daf ne ko man kat am naa xemmemteef ci yow ndax jege gi ma jege ak ngëneel maanaam wasatiya bi nga am ci sa xeet maanaam ngëneel bi nga am ci sa xeet ak màndute bi nga màndu ak sa jikko yu rafet yi ak sa dëggu ci say kàddu ñu nag mu gaaral ko boppam loolu la ñenn ci borom xam-xam yi wax niki noonu docteur Haykal ba mu nettalee détail yooyu nga xam ne mooy détail ak tukki bi dafa ne Maysara دفع يونس بن صلى الله عليه وسلم نكو يا محمد أسرع إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك فإنها تعرف ذلك فسنكو يا محمد صلى الله عليه وسلم جاء والجمع سيدنا خديجة رضي الله عنها عن خبار كل لا يالا دفل دخمم قخم تران كده يونس بن صلى الله عليه وسلم نو حتى دخل مكة بمدجة مكة في ساعة الظهيرة وقتك yoor yoor wala bëccëg muy ginnaaw tusubaar wala waxtu tusubaar waxtu bi ñuy añ ba pare noonu rek wa kaanat xadijatu fi ailatin laha faraathu وهو على بعيرها ونزل حين دخل دارها واستقبلته خديجة رضي الله عنه جمع جوجي نيوان كرم بلانتيرتو ba mu séenee nag gëléem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg kër Xadija wàcce Xadija daal di koy radiyallahu anha daal di koy eh, teeru wastamtaat ilayhi wa huwa yaqussu bi ibaratihi albaliga alsahira xabaru rihlatihi wa ribxi tijaratihi wa ma jaa bihi min sanaati alsham bismillah mu moom Xadija bintu Xuwaylid radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee koy accueillir wastam wastamaat ilayhi mu daal di déglu déglu yonent bi sallallahu alayhi koy nettali jaar jaaram yi nga xam ne jaar na ko mu jaar jaar wu yéeme tukkeem woowu ak bénéfice bu bari bi am ci commerçant bi وما جاء به من صناعة سام أكلم عندي تمت كما سنجد ينزل سام وهي تنصت مغتبتا آه، مأخوذة ومم خديجة من يتوب لكو دقلو رك عندك نياتو وأقبل ميسرة من بعد من بعد فروى لها عن محمد رقة السمائلين ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nettalee ba dem Maysara ñëw commencé nettali nag lim gis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jikko wa jamaali nafsihi ak taaram ga ma ma zaadaha ilman bihi fawqa ma kaanat taarifu min fadlihi ala shababi makka mu yokkal ko ci kaw xam-xam bi mu xamoon ci taaru yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci jikko yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci ngëneelu yonentu bi sallallahu bi waa makka yépp xamoon may sara yokkal ko ci lu mas a فصغفها حبا خديجة نجداري بروخ البجل في ديجنتم أجنونتك صلى الله عليه وسلم وهي تجمعنا جوج من أم 40 من عمرها من فكرة وهو في مقتبل عمره 25 على أصح الروايات يونت بي صلى الله عليه وسلم نجم من دجمال نار فكرة أتم أجروم في جنوية في روايات وتحدثت في ذلك مع أختها سيدنا خديجة رضي الله عنها وقتان في لولو بأن سيرم وقال البعض من ينك برم قم مع صديقتها بن خريتم أو موالاتها ولن بن مبايا اللهم بني وحنا فذهبت إليه مدن تمام فقالت له منك ما يمنعك أن تتزوج lan moo la tere sëy qaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa bi yadi ma atazawaj bi man de awma ci sama loxo koom-koom gu ma mën a may ma takk soxna qaalat mu ne ko fa in kufiyat zalik fa in kufita zalik wa du'ita ila aljamali walmali walsharaf walkafaa ala ala tajib fa qaala faman hiya mooy ko buñ la teg teggilee loolu maanaam alal ji nga war a am pour takk soxna ñu woola ci taar ak alal ak tedd ak segu ndax doo wuyu ji yonent bi ne leen jigéen jooju ngeen may jaaral mooy kan ñu ne ko Xadija kon Nafisa moo dem ci yonent bi ci ñenn ñi luñ wax qaala yonent bi ne fa ana afal bu boobaa ko def فذهبت ممنفسة دم فأخبرت خديجة مدادي وقت لول خديجة فأرسلت إليه أن ائت في ساعة كذا ميوني نيوتي وقت نانجم نانجم فأرسل إلى عمها عمرو بن أسد ميوني بايت بيوه عمرو بن أسد يزوجها جرمو إيه، مايكو يونس صلى الله عليه وسلم فحضر مع أعمامه صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم تيو عندك أي بايت خم من أبو طالب ak ay bàyyi taxam fa tam ziwaj sëy bobu daal am ni lako ko docteur Mouhammad Rida ñettalee ci ni lako ko borom hayatu Mouhammad bob docteur haytal ñettalee wa hada ma zahaba ilayhi الذين يقولون بأن عمرو بن أسد هو الذي زوجه صلى الله عليه وسلم بخديجة li moy sukkandiku way bi nga xamne ñi nga xam dañuy wax ni amr ibn asad mo may sayyidat sayyid yunus bin sallallahu alayhi wasallam sallam sayyidatuna khadija radiyallahu anha wa huwa alqa'ilu fihi hadha albid'a bid'a la yaqra'u anfahu wa kana dhalika ba'da 'awdatihi min sa'm bi bahrayn Euh, euh, euh, mooy ñi nga xam ne dañoo sukkandiku ci loolu ci wax jooju lañ sukkandiku te loolu mi ngi amoon ginnaaw ñu bisit yonent bi sallallahu alayhi wa ci tukkeem boobu ci ñaari weer toxalee nañ jugee ci alxalabi ci siram mu ne wa fi kawni lmuzawiji lahu iyaha xuwaylid ne baayam xuwaylid moo aw kawnuhu xadara taswijaha nadaran li anna almaxfuuda an ahlil ilmi annahu walidan maata qabla harbi sijaar ñu ne moo ko ko may wala teewee na ko ndax wax nañ ni e, ki nga xam ne maanaam boroom xam-xam yi wax nañ ni xuwaylid dafa génn àdduna lu jiitu xardul fujaar illa annahu zahaba kathiru min al ulama lu dul ni am na ñu bari ci boroom xam yi nga xam ne ñooy borom xam-xamu siira yi wax nañ ni xuwaylid ki nga xam ne mooy baayu sayyidatuna Xadija radiyallahu anha mooy mooy ki nga xam ne moo fas sëy bi wa hada huwa ar-ra'yu alladi kaana yaxudu bihi cheikh cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kalaat boobu la jël ci qis qisasi ak sira nabawiya jëlee ko ci nettali sira si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne baay mu ngi ko doon nettali moom biñ ci jàpp mooy Xadija ki ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy baayam Xuwaylid allati سيف يوين كامل كان يسوقها في حفلة المولد من الشيخ رضي الله عنه دان نتلي رضي الله عنه دان نتلي في جمعي ومفاد هذه الرواية أن خويلدا عارض الزواج ورفضه فسقته خديجة خمرا حتى أخذ منه مأخذها فزوجها li ñuy nettali nag ci xisa mooy ki nga xam ne mooy xadijatu bintu xuwaylid ba mu sàkkoo ci baayam xuwaylid mu may ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam baay bi dafa bañ mu nandal ko sàngara ba mu màndi boobu jamono sàngara xaraamagul mu waxloo ko mu mu mu mu ci moom mu may ko yonent mu nangu mu ne ko nañ bind signé mu bind signé nga xam ne bu wuree ci màndite gi ruus naa teggi liñ signé woon ba mu ba mu wuree ci mandite gi ñu ne ko yaa ko fi si ñëw yaa ko yaa ko yaa ko mu ne déedéet ñu indil ko lim si ñëwoon mu d'accord daal di may xadi sayyidatna Xadija radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa kon lii mbokk yi mooy suñ mooy xissa bi nga xam ne mooy xissa bi nga xam ne mooy xissa euh, di boole diggante sayyidatna Xadija